insister ci li nga xam ne mooy choix wu euh, maanaam président Macky Sall concernant Amadou Ba en tout cas pour ce concerne man bettu ma lu tax bettu ma mooy yaakaar naa ci plateau bii laa la ko waxee woon ne le président Macky Sall mënul tànn ku dul ki nga xam ne mooy tax benn bokk yaakaar mun a gagné te critères yooyu dafa xawoon dajee ci candidat Amadou Ba pour plusieurs raisons. mënoo nekk ak nit pendant très longtemps nga jël ko def ko premier ministre bi nga defaree gouvernement ba léegi te ñëpp ñi nga xam ne dañ bëggoon nekk candidat ñu ngi fi woon te tànnoo leen def leen premier ministre maanaam ñu jiital seen xam-xam confiance mais aussi xam PSE question boobu day delsi chaque fois on revient xam naa économiste bi dinañ ci gën a wax président da doon toujours ci continuation PSE ak candidat am war na mun a nekk ku xam e, ku mën a porter le programme PSE yooyu yëpp bu amee bañ toll ci war koo tànn bu ko fi président Macky Sall noonu ñukk dem tànn keneen xam nga lu muy niru ci man c'est comme président Macky moom ci boppam dafa désavoué boppam maanaam la mu gëmoon ci boppam moom ci boppam dafa mujj yëkkati ko teg ko fële pour man c'était un choix impossible de choisir autre que Amadou Ba pour plusieurs raisons mooy li ma la wax léegi deuxième bi lan lay doon si Amadou Ba a des ambitions politiques c'était mon analyse de tout le temps ñaar mooy mun am ou bien le président continue à lui confiance tànn ko pour mu porter le programme terminer tout ce qui est PSE et je me rappelle de ces fameux sama fameuse projection projection 2035 apparemment on est dans la perspective mu jël kooku teg ko foofu bañ koo jël jël keneen dafay mel ni président dafa weddi boppam mooy benn deuxièmement Amadou Ba homme politique nekk premier ministre ñu ne dañu war a tànn candidat bi nga nekkoon kuñ gënoon wóolu ci équipe bi nga bokk ñu teg la fa tànn keneen ñaar mooy mun a am benn mu def une croix sur sa carrière politique mu ne man de comme bokkatuma jëluñ ma bëggoon naa vraiment continuer liggéeyu Macky Sall eh, gis naa ne du moom man la wóolu keneen la wóolu man damay dem toog dem toppatoo sama tool yi wala toppatoo samay ganaar deuxième bi mënoon am mooy mu ne man fi ma toll am je suis porteur d'espérance il faut ma assumer sama position par rapport ak le choix parce que ñàkkul am naa chance risque boobu yëpp président war na ko mun analyser de mon point de vue et am na ko ko wax ci lay Wade la màggee xam na lan moo war a nekk njëriñu camp ak lan moo war a nekk difficulté pour camp et je pense qu'il a choisi li gën a bañ a nekk difficulté pour camp parce que chance yi nga xam ne camp am nañ ko pour se rassembler man su ñu wax ay implosion damay ree man mi xam politique politicien buggul wéet élection présidentielle fête la ci Sénégal homme politique yi ci la ñuy tracer seen carrière yi gëm naa ni am na candidat bi ñu tànn démarche bu muy taxawee ak instinct grégaire biy développé wu au sein de benn Bokk Yaakaar ñoom aan yii kenn ku ci nekk yaa ngi naan naka lay muccee muy ñi bokkoon ak ñi bokkul ñenn ñi naan naka lay fexe bañ boole ma ci mbir mi pour ma bokk ci loolu dina créer beneen dynamique bu bees. autour du candidat autour du candidat. ça c'est mon c'est mon c'est mon sentiment maintenant c'est à lui d'avoir le tact qu'il Et là, contrairement à ce que dit eh, tout à l'heure Anne, il faut que l'esprit Benno s'atténue un tout petit peu, se ah dilue. Bon? pourquoi. Mais, mais, mais, mais, tout le monde se félicite du fait que Macky Sall euh, pérennisait une coalition pendant 12 ans et à la fin, euh, au moment où il doit quitter, que ce soit Benno encore qui porte le, Je suis le, le, le parfaitement d'accord. C'est une prouesse politique. Je dis atténuer, c'est-à-dire que Benno am candidat c'est une très bonne chose mais que Benno seul élise son candidat c'est une gageure. ah bon je te le dis pourquoi. Mm-hmm. Ba n'est pas Macky on est d'accord le leadership que ab Macky Sall a pu incarner bi fi mu toog bu doon nekkatoon candidat gëm naa ne dans le même sillage mënoon na am chance ñu réélire ko c'est mon avis personnel aujourd'hui dafa am ay données yu bees Macky Sall n'est plus là. même si il va soutenir candidat bi nga xam ne Benno tànn nañ ko parce que c'est le candidat de Benno et que moom mooy chef de Benno il va rester des personnes certainement qu'il ne pourra pas mobiliser or sa décision de se retirer dafa jur benn sentiment de satisfaction de certains Sénégalais ces gens-là il faut que Amadou Ba parvienne à les rassembler donc yow da nga jàpp ne Amadou Ba du compter ci Benno kese je termine je termine je termine dina ah, sax ñoom même le président l'a dit il faut ressembler les Sénégalais tous les Sénégalais ne sont pas euh, dans Benno il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas dans Benno qui auraient aimé accompagner le président Macky Sall il y a des gens qui ne sont pas dans Benno qui qui ont des forces qui sont des représentatives qui auraient aimé aller avec le candidat choisi par Benno Bokk Yakaar mais il faut que ñooñu ñu bàyyi xel ñoom nan lañ gisee Sénégal ñu bàyyi xel lan mooy seen vision Sénégal ñu bàyyi xel le bilan du président Macky Sall qui matériel c'est évident là où il y a des insuffisances que ces gens-là au moins qu'on tienne compte de leur position et de leur posture loolu laa jëm ne bu ko fa Ba comprendre il va avoir benno le benno bi gën a mag même s'il y a quelques dissidences ça va être minime mais aussi il va avoir au-delà de benno d'autres Sénégalais yoo xam ne bokkuñ ci benno te ils sont prêts à l'accompagner lui en tant que candidat c'est important qu'il ait une marque à lui qu'il vienne ajouter sa touche dans le projet Benno Bokk